c'est plus un collègue Birame c'est un c'est un ami c'est un frère mm-hmm. donc euh, situation bi mu nekk nii mu nekk euh, situation bu ñu naqari ñu koy vivre euh, lu metti parce que mes pensées vont particulièrement vers ses épouses euh, vers son papa et sa famille ses sœurs donc ñu leen di masawu bu baax di ànd ak ñoom naqar bi et je crois que mënoon na bañ a egg si egg si egg si fii. Mm-hmm. parce que euh, Birame c'est un c'est un être humain euh, nit ku baax la et puis un grand monsieur. certes il a fait un écart de langage. qu'il mm-hmm. a lui-même reconnu waaw mu def na écart de langage. ñëw xam ni def na écart de langage mu ñëw baalu je crois que on aurait pu s'en la là mhm. donc le fait de euh, ñu yóbbu ko kaso man dama jàpp ni loolu daal genre coxor la mhm. parce que bu ñuy yóbbu nit instruction un dossier information ci yoon bu ñu koy ubbi c'est parce que dañuy jàpp ni crime crime obligatoire moom dañuy yóbbu information mhm. mais ay délit bu ñu ci yóbbu nit information souvent c'est parce que dañuy njort ni am na ay éléments yu des dafa leerul mais un dossier boo xam ni amul partie civile amul témoin à entendre nga yóbbu ci nit instruction loolu c'est juste une volonté de faire mal mm-hmm. je crois que fi réew mi tollu apaisement la ñu soxla tàppe xool yi nit ñi delluwaat ci jàmm ñu xool nu ñu téye Sénégal ci jàmm dem ci ay élections di ci ci jàmm on n'a pas besoin de continuer à mettre les gens en prison parce que kaso yi dañu fees dernièrement rawatina sax ne Birame ku mel ne Bassirou Diomaye c'est des gens ku ci nekk am na foo xam ne am nga fa tey jii ne bu ñu leen tëjee xëy na c'est le Sénégal moom moo ciy mm. jël ay Bassirou Diomaye Birame ay inspecteur des impôts yoo xamante ni un président de groupe parlementaire mm-hmm. boo xamante ni mënoon na bu fekkoon ni nekkul légaliste bu ko sûreté urbaine convoqué mu ni demul di xaar ay levée immunité parlementaire même bu fekkee ni ñoom mën nañu tourné ni en flagrant délit dañ ko mm-hmm. toppee ak affaire yooyu jàppal bay mais dañ ko convoqué mu dem parce que njortoon na ni xëy na di présenter na ses excuses su demee du du egg fii mais vous prenez des cadres de ces pays là vous les mettez en prison au même moment parce que ministère de la justice xam nañ ni kaso yi dañu fees ñu ngi nekk di bàyyi ay nit des gens yoo xamante ni ñu ngi leen may ay liberté conditionnelle mm-hmm. des gens qui sont poursuivis pour des crimes extrêmement graves ay viol ay trafic de chanvre ñu gracier mm-hmm. xam nga Sénégal nag war nañu dépasser foofu te loolu ku ko waxul nga wax nga wax safaan wa ah, donc dañu toll foo xamante ni mm-hmm. il faut que ñuy waxante yenn dëgg